Six mois après l'installation, l'ouverture de l'AIBD, euh, nous comment se porte euh, eh le, le, bébé grandit, donc euh, chaque jour un peu plus, chaque jour euh, se passe mieux que la veille, je dirais. Bon, comme vous avez pu le remarquer, les opérations se déroulent normalement. Nous sommes maintenant en phase d'amélioration, donc tous les services sont à disposition de nos clients, de nos partenaires aussi, et des populations qui, qui viennent euh, sur l'aéroport. nous sommes euh, très satisfaits de la manière dont ça se passe. Nous y travaillons tous. Je suis entouré d'une équipe de professionnels et de gens qui, connaissent bien leur, métier et qui sont euh, tout à fait impliqués dans, dans, dans le développement de l'aéroport. Et donc nous souhaitons à ce que le, le Sénégal et les Sénégalais soient, continuent à être fiers de leur aéroport et le citent en exemple quand ils vont à l'étranger. On combien de voyageurs Aujourd'hui, nous sommes sur. Euh, alors, l'an dernier, nous avons fait, euh, entre IOF et AIBD, nous avons fait à peu près 2,1 millions de passagers au total sur l'année. Euh, aujourd'hui, nous enregistrons une progression de trafic euh, de l'ordre de 6,5 à 7 chaque mois. Donc, euh, nous avons accueilli trois nouvelles compagnies depuis l'ouverture et nous remarquons une augmentation de, de l'emport des les avions, donc un peu plus de passagers. Nous travaillons euh, bien sûr à faire venir de nouvelles, euh, compagnies et euh, d'inciter les compagnies existantes à, faire voyager plus, de gens. C'est vrai, le bébé grandit, mais avec, euh, disons, les vicissitudes de la, de Des difficultés, je pas à qualifier ça de cette manière. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes en phase d'amélioration. nous avons des services qui ont été mis en place Euh, certains, au départ, n'ont pas donné la satisfaction attendue. nous avons euh, des actions correctives de manière à ce que ce service soit optimal et que les gens soient vraiment euh, contents de, de ce qu'ils peuvent trouver chez nous. Donc on a eu quelques difficultés, vous l'avez d'ailleurs relayé avec les chariots, mais c'est un sujet qui aujourd'hui pour nous est réglé. Et donc nous travaillons régulièrement à, à trouver des nouvelles euh, solutions ou même d'innover en mettant de nouveaux services en place. Une de courtoisie auprès du gouverneur, euh, cela eh euh, nous semblait nécessaire de venir rendre visite à monsieur le gouverneur qui représente bien sûr la plus haute autorité régionale. Nous sommes sur le territoire de, de Thiès, donc il est normal que nous venions le visiter. Bon, pour ne rien vous cacher, ce, monsieur le gouverneur s'est intéressé de très très près à, l'aéroport, puisque nous l'avons avant l'ouverture. Il était très intéressé par ce qui se passait et il était très impliqué dans, dans, le, dans, dans tout ce qui entourait l'aéroport. Donc euh, aujourd'hui nous avons officialisé cette rencontre puisque euh, les autres étaient plutôt informelles mais constructives. Et aujourd'hui nous sommes venus toute une délégation. Je suis accompagné de notre secrétaire général des principaux responsables en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et euh, la sûreté. Et donc, ça nous a permis euh, d'échanger avec le gouverneur sur les attentes respectives et euh, de donner les grandes orientations à ce que nous voulons faire dans l'avenir pour l'aéroport, pour les populations qui l'entourent, pour le territoire. Et donc, il nous semble logique de, de travailler ensemble. Concernant les populations qui entourent l'aéroport, qu'est-ce que vous avez prévu pour elles dans le cadre Eh bien, nous avons euh, lancé notre programme, euh, euh, enfin, les balbutiements ou le, démarrage de notre politique RSE. après avoir rencontré Monsieur le Gouverneur, nous serons en mesure d'aller rencontrer euh, les représentants des, des, villages alentours et nous allons axer nos actions sur l'emploi, de manière à ce que les gens alentours soient les premiers avertis lorsqu'il y aura des offres d'emploi. Nous avons travaillé aussi avec eux sur tout ce qui est environnemental Et puis euh, nous allons euh, euh, travailler aussi pour apporter un soutien sur certains domaines dans lesquels ils pourraient avoir besoin de, de, de, de l'aéroport. Justement, en, en, en, en parlant de, sécurité, hein, oui. euh, quel lien feriez-vous un peu entre les accidents notés au niveau, de, disons, de l'autoroute et l'AIVD Alors l'autoroute et la LBD, c'est quand même séparé. Je ne peux pas répondre au nom du gestionnaire d'autoroute, vous comprendrez. C'est le même Cordon ombilical. Oui, mais bon. par les groupes pour aller à oui, bien sûr, mais. bon. Vous comprendrez que je ne peux pas me prononcer sur euh, ce cordon ombilical qui est géré par une autre société et je me garderai bien de parler en son nom. Je préfère que ce soit eux qui répondent. En ce qui nous concerne, nous travaillons effectivement avec les populations alentours pour, euh, pour veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Je ne vous cache pas que nous avons beaucoup d'éducation à faire auprès des gens, car comme l'a signalé euh, monsieur le, gouverneur, euh, ce sont des gens qui ont euh, vu l'aéroport arriver sur leur terre, donc il faut aussi qu'on travaille avec eux pour... Pour, pour, pour garantir l'avenir de tout le monde, des populations en premier lieu, de l'aéroport et de ses utilisateurs. Je voudrais rajouter aussi euh, que nous travaillons aussi avec, euh, nous allons travailler avec euh, le Sénégal, pas que les populations, mais tout le monde sera concerné, sur des programmes d'éducation. Donc il est important pour nous que les compétences qui entourent l'aéroport soient mises en valeur. Et donc nous allons, euh, d'ici euh, la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, avec le concours d'AIBD, euh, mettre en place un programme de formation qui permettra d'identifier de jeunes compétences, des gens, de partager ça avec euh, des programmes universitaires et de former les gens au métier aéroportuaire. De manière, nous pourrons avoir des, des Sénégalais qui pourront euh, recevoir ces formations et être diplômés, des, des diplômes qui seront reconnus internationalement, et euh, nous pourrons aussi proposer un emploi euh, aux, gens euh, que nous aurons contribué à, à former. Donc c'est très important pour nous aussi, car l'aéroport, ce n'est pas qu'une grosse machine qui vient occuper le territoire, c'est aussi quelque chose qui peut apporter euh, du progrès, des avantages pour, pour les gens qui, qui l'ont accepté sur leur territoire. Est-ce qu'on peut avoir Très bien. aujourd'hui, euh, l'AS, le gestionnaire d'aéroport, euh, accueille un peu moins de personnes. donc je vous rappelle que nous avons Euh, accueilli euh, tous les employés d'ADS, puisque nous avions euh, signé avec les représentants des syndicats, et du personnel et le ministère des Transports un protocole au mois d'octobre qui précisait que nous accueillerons les employés qui étaient chez ADS. Donc tous ceux qui avaient un, un contrat ADS sont, sont, sont venus chez nous, nous les avons accueillis.

Et donc euh, c'est pour ça que nous arrivons à ce chiffre. Et nous espérons que la croissance de l'aéroport permettra aussi la croissance euh, de l'emploi sur, euh, le site. Hmm. Il faudra que le, trafic augmente <laughs> pour, avoir plus de besoins et donc plus de recrutement. En ce qui concerne la RSE, est-ce que vous avez une stratégie pour euh, aider les populations de la commune de Kermousseux et de Gas C'est Dans d'autres secteurs d'autres secteurs où on va travailler déjà sur euh, l'emploi, euh, l'aide aussi. Euh, donc nous verrons, nous allons, c'est un peu prématuré pour, pour répondre, mais nous allons travailler avec les, maires des communes concernées sur ces sujets, soutien, euh, emploi, éducation. Euh, oui, voilà, quand je dis le soutien, c'est ça. Je peux pas, aujourd'hui me, prononcer avec précision, mais nous verrons avec eux de quoi il en ressort, de quels sont leurs besoins. de manière à cibler et de aussi, car on pourra, on va pas, la RSE, <laughs> bu baax si dalal ki nga xam ne mooy le directeur général de l'AS moom ak bu rafet bu mu àndal euh, dalal leen surtout si li nga xam ne dañ ma ñëw seet si nee naa nag loolu xanaa baax baaxantal la rek boo ñëwee toog di gan nga dem seeti euh, kilifa yi fa nekk nuyu si leen seq ak ñoom ndax wala fa ma naan jotee balaa jotee waaw jotee dafa baax balaa jotee. moo tax ñoom ñu ñu ñu rafetal si loolu waaye su ma digganteeg ñoom comme seen diggante ak sax ak préfet yi euh, lu la tax la ba ba pare ndax ñëpp xam nañ ne bi ñu tabax aéroport bi ñoom ñi fi nekk ñoo ñoom ñu doon àndi liggéey guddi ba ci suba ngoon léegi nag aéroport bi pare na ñun ñu nekk fii ñu ñëw ànd ak ñun nekk si suñu wet euh, pour ñu waxtaan ci biir waxtaan boobu ñu xool aéroport bi lépp li nga xam ne da koy bokk dafa bokk si li koy taaral bokk si li koy defar bokk si li koy tax mu gën a ñoŋ ñu ñu taxaw si loolu ñoom am nañ si ay xalaat ñun am nañ si ay xalaat population am nañ si ay xalaat yoo xam ne ñun mën nañ ko am population yi fa nekkoon si aéroport bi tam ñu tuxal leen am nañ si ay xalaat ak ay bëgg-bëgg ñu xool yooyu yëpp nuñ ko mën a eh, eh, defee ba nga xam ne mu gën a rafet eh, leneen li nag mooy li ñu seetlu mooy aéroport bu ne dafa am si wet gi ay bërëb yoo xam ne dañ ko war a aar ndax aéroport day màgg ndax aéroport du du du du ku mu neex rek ñëw tabax fa lu la neex am na lu ñuy wax servitude aéroportuaire si wet gi si avion yi di yéegee fi avion yi di wàccee ak yeneen ak yeneen fu si am na zone yoo xam ne war na am sécurité fu mbandu essence yi nekk yooyu donc loo xam ne daal maanaam zone boo xam ne la ñëpp xam nañ lu toll ni aéroport ay avion yu mag dafa wàcce mënuñ ko sa mënuñ ko eh, sàggane moo tax ñàkk sàggan boobu moo tax ak ñoom ñu war a euh, ñu war a waxtaan waaw wolof mooy naan euh, euh, wat gaal ak yëgoo moo tax ñu war a toog yëgoo ak ñoom waaye wax naa tam beneen mbir boo xam ne dafa am solo te am na ku ma fi laaj ne ma dégg seetlu na ne si wetu aéroport bi nit ñi dañuy foofu ñu bëri daal ñu ngi fay def euh, euh, di jëf jaamal jiixi jaaxa si suuf si suuf si loolu tam ñu ngi wax ni ñu bu baax a baax liñ leen yàgg a bu ñu fi nekkee ba tey suuf loo xam ne dañ koy lijjante si benn bureau yoog benn waaye ngeen lakkatu fenn ah, dafa amay kuréel yu ko war a toppatoo amay service yu ko war a saytu urbanisme mu ngi fi cadastre mu ngi fi domaine a ngi fi ñun am nañ fi DSCOS sous préfet yaa ngi fi maire yaa ngi fi ku jóg yore ay kayitam ñëw ne la man damay jaay ay terrain si booru aéroport vraiment bu fekkee ne sàggan nga ñëw topp ko mu dugal si benn ruq yoog moom kese amul benn seede loolu seen diggante yéen ñaar lay doon ñun teg nañ ay kuréel yu am solo yoo xam ne fu ñu war a tabax xam nañ ko fu ñu war a tabax am nañ ko ku fa am suuf am fa mètre carré fi nga ko war a am te muy mu mu lew la bàyyi nañ ko yow ku fa am suuf te mu lewoon la te ñu xool ne suuf soosu lu mu lay lew-lew ti ànd ak nekkul aéroport foofu aéroport bi foofu ñu ngi xool nu ñu la tuxalee feneen donc si loolu lañ nekk liggéey boobu nag bu ñu koy def dafa laaj ñëpp ànd si euh, moo tax ñu ngi vraiment encore sensibiliser di ñaan yéen presse bi ngeen gën ñu ni ngeen ko doon defee démb ak barke démb si gën a sensibiliser ñi bu ma dégloo seen rajo yi yéen ñëpp wala di lire seen journaux yi yéen a ngi fàttali ñi ñi nga xam ne dañu ñëw ay suuf te ko fu ñu ko war a teg ñu leen di nax fu muy mujjee fu muy mujjee mooy tribunal ak yeneen problème waaye ñun moom li wóor ba wóor mooy préfet yeeg sous préfet yeeg gendarmerie yeeg ñooñu maa ngi doon wax léegi ci biir bureau bi euh, euh, li ñuy wax euh, les trois P là mooy préfet police procureur wala préfet gendarmerie procureur ñooñu moom yooyu du si mos a ñàkk parce que à chaque fois que nit ñi dugg si lu ñu war a dugg ñun incha allah ñu fexe ba tegal leen si yoon fu ñooñu mënta jógee nag bu dee ay population la population yi dëkkoon foofu war ngeen mën a xam ne ñun du ñu mën a foofu laay jeexale mënuñu nangu ay population dëkkoon fenn ñu toxal leen foofu jëlee leen foofu te loolu xel war na ko mën a xel war ko mën a nangu ay nit yu dëkkoon fenn ñu jëlee leen foofu ñoo ak seeni i jur ak seen i bagage ak yëpp toxal leen fenn jox leen feneen suuf yow nga ñëw ñu ne dañ la fay jaayaat suuf nga nga jël ko loolu nag vraiment xam nga ne sàggan weesuwul loolu ndax bu doon moomeel gi rek la kon xanaa ñu fa nekk ñu baleen fa waaye boo gisee ñu toxal fa ay nit yóbbu leen feneen jël seeni tool président de la République dafa dafa jël trois cent hectares trois cent quatre hectares joxe ko feneen si forêt classée bi ñu déclassé ko njokk population yi pour ñu sori aéroport bi ak zone boobu ñu mën a mën a nekk seen nekkinu bopp seen activité bopp. waaye yow boo jógee benn waaye ñëw la ma ne am naa benn euh, terrain boo xam ne dafa sës aéroport bi nga nga nangu koo waxaale moom ba di ko jënd fi may jaxalee mooy keroog benn waaye dafa ñëw ne ma euh, dañu ñëw dagg jël ay ciseaux dagg grille aéroport bi dugg ci biir naan dañuy xool seen terrain ci biir xam nga loolu moom euh, caaxaan weesuwul loolu. bi ma ko gendarmerie waxee ma ne ñooñu kay xam ne dañu rek ñu xam ne dagg gri ay pour dugg aéroport loolu déjà mooy wane nekk voilà donc pour insister encore une fois si population yi ñu mu nu mënuñ tuxal aéroport tuxal ñi fa nekkoon tuxal seen i jur tuxal seen i école tuxal seen dispensaire pour nangu ma samba wala ma dem ba ñëw jël suuf si di ko jaayaat loolu ku ko def ku ne nag yaa tooñ sa bopp te ñu duñ ko seetaan jërëjëf. Euh, Pape Mahawa Diouf euh, secrétaire général. Euh, aéroport euh, Dakar Blaise mhm. voilà euh, tey ngeen ñëw seet si euh, monsieur le gouverneur waaw sabab bi moo doon gannaaw bi ñu tijjee aéroport bi mu def ko ci jàmm mu doonoon défi boo xam ne dafa rëyoon parce que il fallait ñu tijji aéroport bi ci benn bés arrêté avion ak roppalaan yu doon daw Dakar yëpp indi leen jas ci benn bés ñu def ko yàlla may ci ndam Sénégal mu sotti euh, ñu puus nag euh, gan gi di aéroport bi ci diir bu gàtt ba mu commencé démarrer léegi nag jotoon na ñu dem rencontrer ñi nga xam ne ñooy autorités administratives yi euh, coutumières yi les autorités politiques au niveau des mairies également pour administration décentralisée moo tax ñu tàmbali ci gouverneur u cees ñëw rencontrer ko tey waxtaan ak moom wax ko sunu mbëbët ak sunu yéene ci liggéey bi mais yeggali tamit jokkoo bi nga xam ne am nañ ko moom laata boobu aéroport bi tijjeegul ndax euh, gouverneur moom dafa jàpp ci liggéeyu aéroport bi ci population yi seen déplacement accompagnement processus bi ba niñ ko tijjee euh, moo taxoon nag te ñu ñëwaat euh, gis ko ne ko aéroport Thiès am na lu toll ci ñetti yi nit ñu fay liggéey te mu doon ci région de Thiès. moom ay d'autres questions aussi yoo xam ne dafa lié ak sécurité environnement bi ñi nga xam ne ñoo ñooy ñuy woy les spéculateurs foncier ak ni ñuy def daal ba nga xam ne la xewoon Dakar ci wàllu environnement aéroport doomaat fii loolu nag dafa laaj ñu waxtaan ak moom moom mi nga xam ne mooy kilifa état du Sénégal ci région de Thiès pour que lépp lu ñuy def ñu jokkoo ci àndi ci di yëkkateendoo di dóorandoo ñooñu aussi am na anam bu ñuy wax si français RSE responsabilité sociétale d'entreprise euh, fexe ba ñi leen wër ak ñu nekk si diwaan mën a gis seen bopp si aéroport bi si yan fànn. waaw loolu bokk na yi tamit ci li nga xam ne mooy sunu préoccupation la si boppam am nañ préoccupation yu bëri ci wàllu njàng mi éducation am préoccupation aussi ci li nga xam ne mooy xëy wi l'emploi pour nit ñi nga xam ne suñuy jëli nit ñi dëkk sës rëkk ci aéroport bi doon ñi nga xam ne ñooy profil yi nga xam ne moom la ñuy njëkk xalaat pour ñu war a mun a ñëw liggéey ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci aéroport am nañ ci ay xel ak ay xalaat yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey jot nañ ci waxtaan ak gouverneur waaye gannaaw bi ñu jógee ci gouverneur nag li ñuy def après mooy dem seeti mairie yi mooy mairie Kër musa mairie Diass ak mairie Sindia et puis après le préfet de Mbour pour waxtaan ak ñoom ci ni nga xam ne mooy besoin yi li nga xam ne moom lañ soxla fépp fi nga xam ne mun nañ ci rof loxo rek ci wàllu éducation wala ci yeneen i besoin yaa xam social la euh, wala sportif et cetera mais loolu yëpp waxtaan la c'est pas des choses yoo xam ne on le décide maintenant mais li am mooy yéene gi ak suñu pas-pas ak euh, suñu détermination mooy fi nga xam ne fala aéroport bi nekk mu doon njëriñ ci impact social ci population yi doon njëriñ également ci impact économique ci Sénégal mais ban façon jafe-jafe la leen ñi ñëw di dëkk ci wetu aéroport bi di indi. am na lu luñ ci xam mais li ci ëpp mooy xëy bi ak mais jafe-jafe yi bëri nañ am na éducation am na ay question de bëri na waaye li am solo. wax ni ci wàllu spéculation foncière. waaw ban jafe-jafe la nit ñi di indi aéroport bi bu fekkee dañu ñëw bëgg dëkk ci wetu aéroport bi. ah ay jafe-jafe kaaraange ndax aéroport moom li ci ëpp. mbiru kaaraange la. ndax aéroport dafa doon frontière doon zone sensible ci wàllu sécurité ak sûreté de sorte que lépp lañ normé du loo xam ne ci Sénégal rek lañ ko tënk ay normes internationales ñoo ko tënk tënk ci Sénégal euh, bokk na ci fi nga xam ne fa nga war a tabax ak fa war tabax ak fi ngay tabax ñaata hauteur la war a am de chaussée la war a doon R plus 1 wala R plus 2 ak fi nga xam ne waroo fa jege sax loolu yëpp nag euh, laaj na encadrement gouverneur ñaax ñu ci tey fàttali ñu ko ne ñu contre également sur euh, l'implication forte bu aéroport bu Blaise Diagne ci autour question yooyu ba nga xam ne dinañ ko mën a aar bu baax a baax a baax ba nga xam ne aéroport international bu Blaise Diagne du am difficulté yi nga xam ne moom lañ amoon euh, Dakar ci wàllu servitude. J'avais reçu euh, le directeur général de une visite de courtoisie dans un contexte d'installation de l'AIVD depuis le décembre euh, a été un peu l'objet de ce visite Bien, je voudrais d'abord remercier M. le directeur général, accompagné du secrétaire général et d'une euh, délégation très forte euh, donc, euh, de l'AS, en présence aussi de mon adjoint chargé des affaires administratives, de remercier pour cette marque d'attention Tant il est vrai d'ailleurs qu'ils ont voulu formaliser euh, cette visite, euh, encore qu'entre nous, les relations existaient déjà et le contact a été permanent. Hein. Nous avons souvent parlé au téléphone, nous avons partagé beaucoup d'informations ensemble. Mais il était important que maintenant que l'AS est bien en place, que l'aéroport fonctionne très bien, euh, que l'autorité administrative représentant le président de la BIC et l'ensemble du gouvernement reçoivent euh, donc les, les dirigeants de cet aéroport. pour qu'on puisse partager un certain nombre de, de, de, questions et de préoccupations liées au développement de l'aéroport en général et au, à la place de l'aéroport dans la région de, de Thiès et dans le Sénégal en particulier. Et de ce point de vue, vraiment, nous avons abordé beaucoup de questions très importantes. Euh, je laisserai monsieur le directeur général y revenir. Euh, mais je vous dirai seulement que c'était voir quelles sont, quelle est la place euh, de cet aéroport, qu'est-ce que ça peut apporter, et quelles sont les difficultés éventuelles. Euh, et pour tout cela, il n'y a pas de problème particulier parce qu'il faut dire quand même que l'aéroport a été créé de façon vraiment avec euh, un, un consensus autour, avec euh, toutes les, les, populations, les responsables, les techniciens. Il y avait une osmose générale euh, qui a abouti à, à, une ouverture en apothéose de cet aéroport. Et aujourd'hui, l'aéroport fonctionne à la plus grande fierté euh, de, de, de, de l'ensemble des Sénégalais. mais comme on dit, il faut toujours que les autorités soient vigilantes pour que quand on a un bijou qui est dans un écrin, qu'on continue toujours de le polir pour qu'il brille encore plus. Véritablement, c'était un peu ça l'esprit. Euh, je dois dire aussi que nous avons partagé et nous avons insisté sur une question, moi, qui me tient à cœur et qui tient à cœur le directeur général et son équipe, c'est véritablement la sécurisation de l'environnement de l'aéroport. Ça, euh, c'est une des prérogatives des autorités administratives et des, des, et des collectivités locales. il n'est pas question d'avoir un aéroport et que dans quelques années, que les mêmes mots qu'on a pu trouver à Dakar puissent se reproduire euh, dans l'aéroport, aux environs de l'aéroport. Pour cela, il faut qu'on puisse échanger euh, par rapport à, euh, à l'implication personnelle des autorités en général, administratives, des autorités de sécurité, pour que nous puissions respecter ce que l'on appelle en général les servitudes aéroportières. Et, mais cela se fera dans le cadre d'une gestion consensuelle, comme ça a toujours fait, bien entendu en respectant euh, la lettre euh, donc, euh, du, du, point de vue de la sécurité, parce qu'on sait que les questions de sécurité, tout est négociable, euh, comme on dit dans ces questions-là, sauf les questions liées à la sécurité. Et ça, c'est vraiment une question tranchée à l'échelle même mondiale. donc euh, le directeur ne peut rien, les autorités administratives ne peuvent rien. des questions qui sont là, qui sont sur lesquels on ne pourra pas négocier. Mais tout le reste, on pourra partager. Voilà un peu globalement ce qui nous réunit. Et donc je suis très heureux d'avoir reçu le directeur général et son équipe. Nous qui avons euh, C'est pourquoi j'ai dit que la spéculation foncière, comme on dit, euh, nous, sommes en train de prendre des mesures pour y faire face. Et, ça aussi, euh, le moment venu, en tout cas jusqu'au moment je vous parle, il n'y a pas encore quelqu'un qui a un, le, un terrain dans le domaine de l'aéroport. Cette question a été réglée, l'aéroport est, est sécurisé. Maintenant, il y a une spéculation autour de l'aéroport. Ce n'est pas dans l'aéroport, mais c'est autour de l'aéroport. Et cette spéculation, nous sommes en train d'y mettre fin. parce que nous avons déjà instruit les maires, nous avons instruit les sous-préfets, nous avons instruit tout le monde. Et nous avons mis un comité de veille pour que les spéculateurs fonciers ne puissent pas aussi euh, égarer certaines personnes euh, qui sont peut-être qui suivent qui suivent ces personnes là qui qui viennent leur euh, qui ont le qui qui viennent leur proposer des des terrains sans même qu'ils sachent à quoi s'en tenir. On a installé moi-même vous avez participé à des réunions auxquelles j'ai participé moi-même et j'ai toujours insisté pour dire aux gens que ce qui s'est passé à Dakar ne se reproduira pas au niveau de de l'AIBD. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se avec euh, des papiers, qui vous dit que j'ai un terrain, que je vous vendre, mais il faudra que les populations aussi ne soient pas naïves. Elles doivent vérifier. Il faudra, c'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité doit être partagée. Autant euh, nous, autorités administratives, nous devons prendre nos dispositions, autant les acheteurs doivent être vigilants. faut pas que n'importe quelle personne qui vous, vous s'arroge en promoteur immobilier du dimanche vous dit que, que j'ai des terres par par-là, il vous les propose à des prix défiant toute concurrence et que vous sautez dessus. Après, peut-être qu'il vous restera que vos yeux ou bien en tout cas aller devant les tribunaux. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons fortement sensibilisé. Depuis que je suis gouverneur de Thiers, je sensibilise fortement les populations sur le fait que pour acquérir un terrain, quelque part, mais bon malheureusement les gens ne suivent pas toujours cela. Voilà.